te mucc nag ci mboolem ñu fi bu mu lamboo benn pox bu mu lamboo benn mu yàlla lépp loo xam ne sariante daf koy bañ ñu daw ko ca loolu mooy gàmmu gi nga xam ne moom mooy moo xam ne ñu tënk ci def gi ngir bëgg yonante lépp bu teg loolu itam kon dool dugut gàmmu ci maanaam nga xam ne man ci laa ko ni ko xolamaa yu bëggee mooy dundi la dundale sa alal ngir bég ci am ngi yàlla amal yonent bi nga xam ne mooy moo ñu solo ñun ñëpp mooy yërmande ñeel mboolem mbindeef yi di tagg yonent bi di mett di dundam e di julli ci yonent bi e di ñaan yàlla say soxla di ñaan mboolem julli yi te mucc nag ci mboolem ñu si bu mu làmboo benn pox bu mu yàlla lépp loo xam ne soriante daf koy bañ ñu daw ko ca loolu mooy gàmmu nga xam ne moom mooy liñ santaane meneen meneen mbir moo xam ne ñu tënk ci def ngir ngir bëgg yonent lu ëpp wutal loolu itam kon loolu dugut gàmmu ci maanaam nga xam ne man ci laa ko déggee هنيئا لإبراهيم لك هلال هلال بدا للناذرين جماله هلال ربي فيه جاء محمد وتم لنا البشرى وأما نواله